aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ni alhamdulillahi alladi jaalana xayra ummatin uxrijat linnaas wasalaatu wasalaamu ala nabiy alhuda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tuuba aski sëriñ tuuba ci sëriñ tuuba borom tuuba moo romantewul bokki jullit yi bokki taalib yi yàgg tàmm di ànd ak sàqum tuuba di seetu murid yi sàqum tuuba la miroir du mouridisme da ngeen di ànd ak moom saa su nekk ci youtube bi ci sàqum tuuba l'officiel wala ci internet bi di site bi saxumtuba point net ñu ngi leen di ndokkeel waaye jiitu ndokkeel gi nag képp koo xam ne xam nga nu wala nu xam la wala nga dinu dégg noo lay tàllal loxo di la ko dagaan di la baalu bu buñ la ko ameelee nga xam ko te xamuñu ko wala nu nga nu xam ko te xamu ko noo ngi lay ñaan nga baal nu àq ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu barkib Cheikhul Xadim di baal ñépp ak bayuñ kenn ginnaaw loolu noo ngi tuubal yàlla suñ borom di ko ñaan mu jéggalu nu ñépp lépp lu am ci rëcc kenn ku ne sa digg sa borom waaye nag di ko sant ci xéewal yi mu defal te bi ci gën ëpp ci njariñ mooy boole gim nu boole Serigne Touba ndax gëm naa ni weeru koor wi nu jëm mboolem ku sukk jébbalu ku ne bu nu boolewul woon ak Serigne Touba mën ngaa doonub jullit de mën nga koo dund de waaye nii nga koy dunde ci kaw njàngalem Serigne Touba ak tëriliinu Serigne Touba muy alxuraan ak sunna ak liñ ciy daj ak liñ ciy joxe ak lim la lim ku ñu boole wul woon ak Serigne Touba doo ko defee noonu loolu amu ci lu koy werante moo tax nag xewal gii di di jub si noo ngi ciy ndokkeel képp koy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah di ci ñaanal ñëpp di sàkku ñëpp ñaan lépp lu ci aw yiw lépp luñ ci woor ci bisub àllarba bi ba këra nuy wori yàlla nan ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin waaye lépp luñ ci def itam sunu borom ci mbaaxam ak mën a jëlaleem yàlla na nangu bis yi nuy woor yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci gën jaa rafetul nangu noo koy ñaan yàlla sunu borom mu nangul nu sunu koor bu nu ko nangulee nag maa ngi wax ak képp ku bëgg engagé wu ci loolu man yàlla na ma ko yàlla tegal ci loxol Cheikhul Xadim bu ko nangoo ba xam ni lii nangu na ko rafetlu na ko bég na ci def naa ko addi Serigne Touba. koor gi lépp ak leneen lu baax luñ ci ci biir weer bi ginnaaw loolu nuy sant yàlla di ko ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla tawféexal ko ba li mun naa lépp rek yéene ko ak leneen li ko keneen yéene ku mën a doon ak noo ko yéene ci liggéey suñ liggéey suñ tubaab bii di tool bu lislaam bi mu liggéey ko nu ànd ko moom te day jo ngërëmu sëriñ bi may ko fanu gudd ak wér te defal nu ko defal ko bépp taalibe defal ko bépp jullit noo ngi ndokkeel ñëpp ci shahrul xayri wal baraka kaddu yi nag talaata xam ngeen tey waroon doon jataayu murid saadix weer wi nag moo tax ak tolluwaay bu ku ne xam ne weeru koor na mu ñëwee dañ leen di yëgal rek ni mboolem lu nit di jariñoo ci jullit di taalibe ci weeru koor ci xam-xam fas nañ yéene incha allah rabbi programme bi kenn du leen ko wax ngeen lëkkaloo ak Saxum Touba l'officiel ci jëwriñ ji ko dénk sëriñ ko Sëy mu ànd ak sëñ Ablaye ak sëñ Cheikh Loum ak sëñ Alla ñépp ñëpp bàyyiwun kenn ñu ci nekk ba li ngeen bëgg ci jariñu ci weeru koor ci xam-xam ak i tegtal ak dund ko ci anam yépp bu ngeen dégloo programme bi sëriñ Kosso Sëy wax yaakaar naa di ngeen ko gis te dañ ko baam baamtuwaat ko kon ñu ngi tàllal ñëpp loxo ci weer wi ci déglu ak ànd laayante biir ak jëf lu baax ci suñu ñaq kemtalaar kattan kenn ku nekk nu fas yéene koor koor goo xam ni ñëppay am koor yu baax jullit ñëpp waaye nun ni Sëriñ Tuubaa jiitoo ba kenn werantewu ko mbooleeb ku ko yaakaar ku ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy yebbi bu ñuy yebb koor jullit ñi buñ ko yebbee ba noppi sunu koor nekk jamaa ci kanam yàlla sunu borom mu muñ xam ni njabatu sëriñ Touba xam ni taalibi Serigne Touba xam ni waa kër Serigne Touba ñëpp a def lu baax waaye gis na ni li ñu def kenn fekku ci ci koor gu sell ci koor gu yiw ci koor ngir yàlla ci yëkkati seen alal joxe ci dem ba jeex takk su ko defee Serigne Touba xool suñ jëf yooyee yonent bi xool ko ñu geesoonte seen xool sedd guy ñu xam la ko noo ngi ci woo ñépp noo ngi ci incha allah lu ci biir koor gi dinañ ci delsi ak yéen ci ay ndénkaane ak biir waaye tey nag jataay bu rek la bëgg a tàmbalee incha dellu it di ndokkeel waa weer wii di leen ñaanal ñu daje cee ngërëmul sëriñ jëf yi jëf ci jox yi woor ku xam jox nit aw ñam rek ku xam te ci weeru koor nag loolu fa mu toll yàlla nañ ci dajeeg ngërëmul suñu borom ngërëmul sëriñ bi ni ma leen ko waxee rek ndax ngërëmul sëriñ bi mooy ngërëmul suñu borom ñu ngi leen di sant bu baax a baax di tàllal ñëpp loxo nag ci weeru koor wi ci domaine yëpp bàyyiwun benn incha allah fas yéene ko ànd ak yéen ñaan yàlla ñëpp fekke ko te tal ko te nu def ko ni ko sëriñ ni ko yàlla bëgg waaye loolu it day ànd ak akuk dogu nag ak positif ak narko ak duo di wax it ni képp ku daan seetaan ah yaakaar naa ni dina jël 3000 francs lu ko ëpp. di ko dugal ci ay site internet wala fereen ak fereen di topp leneen ah lii nag nit mën na cee profité jaamu ci yàlla xam ci diineem bégal ci xolam tooyal ci xolam di gëm boroomam rawatina nag li nga xam ni dana doon lu yéeme boo ko xoolee Serigne Touba li ma leen wax léegi rek nga xam ni tey jii boo demoon tey njaareem fulku ba Masaalikul Jinaan nga dem Daaru Muxti dem Daaru Salaam boo ñëwee Touba foo laal niñ koy dundale bu fekkoon ne tey jii adduna sëpp braqué nañ seeni média ci li ni ko ni ko yor mu di dunde ba ci bitim réew nag mu wër ma ni kër sëñ Tuubaa yi foofu dem fu ne da ngay defee ni fii rek la koor gi amee ca nañ koy defee ci génne seen alal ca def ko ci sell ak lépp loolu yaakaar naa ni ni ñuy taxawoo daara yi ba doom donga yi dañuy mel ni ñoom weeru koor dañuy yàkkamti wu dellu si ndax seen lépp dara du manqué te loolu noo ngi ciy dox ay tànk guddeeg bëccëg kon nag noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lii ay kàddu la rek yu jëm ci bokk yi nga xam ni ñoom ñoo topp di topp Saxum Touba di ci abonné ak di ko partage ak di ko di di di di di ko di ko yittewoo te dara taxul rek liggéey Sëñ Tuubaa rek la ci jublu yàlla nañ ci dajee ngërëmu sëriñ bi te buñ ci gis suñu bopp benn yoon noo ngi leen sant leen gërëm képp koo xam nag noo ngi tàllal ñëpp loxo ci li nga xam mooy liggéeyub Saxum Touba mii góor jigéen mag biir réew mi ak bitim réew mi jërë jëf. mbokk yi lii kon moo doon seen. jotaayu Murid Saadix tey incha allahu rabbi fas nañu yéene dañ ko dund nag dundale ko koor gi incha allahu rabbi ci anam bi nga xam ne moo dëppoo koor gi ci jataayu Murid Saadix ak yenn yi ci yëpp ni ma leen ko waxee rek lépp sëñ Kosso dina leen ko leeral bu soobee yàlla waaye jotaayu Murid Saadix bi daal tey kon lii mooy li mu indi incha allahu rabbi nuyoo ak balu balu ñëpp àq ak ñaanal ñëpp koor gu ñu nangu. Euh, yàlla taxawunu dimbalinu te nu sellal yéene yi ak jëf yi euh, te ci ci barkeb Cheikhul Khadim ci jataayu Murid Saadikh kon loolu moo doon liñ leen doon nuyoote ci euh, ndoorteel koor gi jërë ngeen jëf